li tax way wi walaf te ma dégg yaaramoo dama nar gaay jàngul xam boroomam sëriñ seexloo ngaabu sëriñ seexloo ngaabu nag mi ngi feeñ jamono ci dëkk bu ñuy wax nguy gi di dëkk bi sëriñ ibrahima loo njëkk a sance ginnaaw bi ko sëriñ touba seexalee ci atum 1927 dëppook at mi sëriñ touba xaadimu rasool wuy jee boroomam wajuram bu góor di sëriñ ibrahima loo wajuram bu jigéen di soxna Marema Sooda Jóob sëriñ seexloo ngaabu nag bokk na ñi nga xam ne ñoom la sëriñ touba mujjee jox aw tur ci seen seen nopp sëriñ Ibrahima Lo mi waajuram nag mook sëriñ Massamba Mbacke ñu gën koo xam ci borom ñetti kaala yi ñoo bokk benn waajur bu jigéen sëriñ Massamba Mbacke nag ñépp xam nañ ko moo bokk ak sëriñ Touba Xaadimu Rasul wenn waajur bu góor muy sëriñ Mamour Anta Sali ndax bi soxna si ñëwee ci kër sëriñ Mamour Anta sëriñ Massamba rek la fa jot a am yàlla dogal sëriñ Mamour Anta wàcc ab liggéey mu ñëw ci ku ñuy wax sëriñ Dame Abdourahmane Lo ci la amee sëriñ Ibrahima Lo ak ñi bokk ak ñoom kon lii mooy asanu sëriñ Seex Lo Ngaabu sëriñ Lo Ngaabu doomi soxna yépp war a wuti wuti na ko ci dëkk yu bari ginnaaw bu mu ñibbisee ci xam-xam boobu mu doon sàkku fekk na booba waajuram di sëriñ Ibrahima Lo ñibbisi ngaabu ci la ko sëriñ Ibrahima yebalee te dëkkam boobu ñuy wax Kolobaan Saalum ca gannaaw ngaabu mu nekkal ko fa féete ko ci fànn yépp nag sëriñ Cheikh ngaabu nag nekkoon nit ku am fulla di nit ku laabiir di ku am yërmande di ku xam àdduna ndax tagg bi gën ci tagg yi mooy jikko ju rafet ndax suñu bi muy tagg yonent bi sallallahu wa sallam la ala xuliqin azim doonoon na tamit nit ku mën a jaxasoo nit ñi ku xam yoonu yàlla di ku xam ni muy àndeek ñi ko yàlla booleel waaye jamono yi fi sëriñ Ibrahima Lo di nekk mu nekk Colobane nga xam ne jamono yooyu la fi sëriñ Modou Moustapha di nekk euh, ci xilaafa gi waaye lim fi fekkantee ak moom euh, bariwul sëriñ Cheikh Lo Ngabou nag nekkoon tamit ku daan dimbalee ci wàllu yëpp ci wàllu xalaat ak wàllu ñaan ak wàllu ndimbalul àdduna ndax bokk na ci lu mat limu ay dépasse yu bëri yoo xam ne moo leen daan dimbali bokk dañ ñi daan yendu si ci moom te ñooñu ñëpp moo leen loon añ ak reer euh, ba ci daan sol daaw ca def xaalis xaalis bu mu saana daan jël boo waxee mu ne ku joxe ki laaj la ko fi bàyyi te léegi la ak banque kon loolu lépp day firndeel ne nit koo xam ne la na ci ay waxam tamit daane wax naan bëggul sëriñ buy tëju ndax sëriñ Touba bi ñuy bool ak mi ñu di leen lijjanti moo taxoon kon sëriñ buy tëju de boo dajeeg sëriñ Touba da nga rus te boo tëjoo dina am mbooloo mu ñëw duñ la mën a gis te doo leen mën a lijjanti kon moom loolu la doon dund mu doonoon koo xam ne ku daan dimbale la ci wàllu ñaan ndax ñaan googu daana ci dimbale askan wi di dimbale goo xamante ni gu yaatu yaatu la te daawu ci dara ndax Serigne Touba moo ko joxoon ma Massamba Mbacke mu jox ko Serigne Ibrahima Lo muy waajuram mu joxaat ko Serigne Cheikh Lo Ngabo ñaan googu nag mu doonoon ci koo xam ne ku ci daan dimbalee waaye soxla wutu mu lay ñaanal ngay am loo koy jox kon loolu day wane ne dimbale doomu aadama yi moo ko ñoroon Serigne Cheikh Lo Ngabo nag noonu la nekkee woon ba xëy jébbaloo ci Serigne Fallou Mbacke ndax waajuram muy Serigne Ibrahima Lo moo ko waxoon ne képp ku fi nekkal Serigne Touba dem leen ngeen jébbalu ci moom ndax sama liggéey ci waa Serigne Touba yi ci lay matee yi sëñ Seexlu Ngaabu di wéyal ndigal loolu di ko jëfee bu baax a baax ba nekkoon ki nga xamante ni moo di xaritub sëriñ Fallou Mbacké ba daka daan wooyee sama moom bopp mi daawu ko woowee sëriñ Seexlu Ngaabu ngir bëgg gum ko bëgg noonu la nekkee woon di xaritub sëriñ Fallou Mbacké ba ñëpp ràññee ko ci loolu ba ci liggéeyub jumaa ji am na la ko ci sëriñ Fallou Mbacké sasoon mu bokkoon ci ñi doon liggéey mu jëfee ko comme noona ba sëriñ Fallou Mbacké jotoon koo wax ne ko sama moom bopp mi te booba sëriñ Seexlu Ngaabu lay waxal jumaa ji képp ko mënta tàqale ndox mi ak xeer yi ak ciment bi mënu laa génne ci liggéeyub sëriñ Touba kawe nel fere yi ñu dem wuti këri àdduna waaye këri àjjana moom am nga ko ba pare kon sëriñ Cheikh nga Ngabou nekkoon na koo xamante ne ku jàmbaare la woon noonu la nekkee woon di def lu baax ci kanam Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ba ci kanam te ni moo di sëriñ Abdou Lahad Mbacké di jëfe ndigal di bàyyi tere noonu la nekkee woon ci ak dundam ba xëy wëy ji suñu borom mu dëppoo ko le 2 ci mois de février fii ci Touba kon sëriñ Cheikh Lo Ngabou yal yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ca aw yoonam wa feesal ci ay leeram ba faf ju diyal moroomam moroom